ci waxtu wi sunu réew di Sénégal jëm si yoon ngir soqaliku siy firnde di liggéey yu mag yi nu sumb ngir nag ñu mën a am taxawaay bu mat sëkk si àdduna wërngal këpp nii muy doxee te sax umpale woo leen ni ngir nga bokk si da ngay mën sa bopp méngoog jamono ndax nag say ñooñub réew mën laa wekk loolee bokk na si li tax liggéey boobee nag ñëpp war see mën a jàpp waaye nag secteur privé national bii de desu si ginnaaw bokk na si li tax ñu boole seeni doole doon benn say di xàccandoo di ngir gëm seen réew bëgg seen yokkute ko koom ndax amuñu lu dul réew mii nu jàpp ku nekk mën nga see bay sa waax loolee tax na secteur privé national bi nu jàpp nii bu ne koom fii si mim réew bokk nañu si ñi ëpp si li koy doxal kuréel gi ëmb entrepreneur sénégalais yu tàkku ñu taxawal club 50 pour cent de préférence nationale ngir nag ñu mën a wekk jox cër yoon yi nguur gi teg ngir sàmm entreprise yi fekk baax fii si mim réew nekk la bii di bu waxtaan sottante xalaat ëmb si biiram mboolem entreprise yi mën seen boor sàmmoo ak yoon am taxawaay bu mat sëkk si liggéey di sedd ak di sellal gunge autorité publique yi ngir rek yokkute réew mi ba tax nag mboolem taxawaay bi patronat local bi am di leen ko fi waxtaanee di xàccandoo di dóorandoo ngir rek gëdd gi gën a yokku dinañ fi waxtaani seen i jafe-jafe yi lépp lu jëm seen wàllu marché yi seen diggante nguur gi waaye tamit ñu mën a sàmmonte ak yoon di jubal di dëggal di leeral maanaam daal cadre d'échange la boo xamante ni day dina fànq réeroo yi dina tamit leeral yoon wi lu ni mel sax njëkkewul fii ndaxte fépp si dendub Afrique boo demee di ko fa fekk kon mel na ni daal booloo di xàccandoo di dóorandoo xew na loolu si jamono tey jii si xayma mën nañu jàpp ni réew yi de ñoo ngi faral di liggéey ak entreprise étrangères yi comme réew yi daanaka lu bare foofee la jëm te loolee nag jàpp nañu nii ni waruñu leen mën a bàyyi lépp rek ñuy buur di bu mi moo taxit cinquante pour cent préférence nationale bii de jóg taxaw tem ngir nag sàkku si ñoom ñu doyloo tamit entreprise privée yi nga xamante ni sax nag xarañteef bu mag moo ngi si ñoom lépp lu nu am fii dañ koy bàyyiwaat kon jot na nag entreprise étranger yi de ñu bañ leen war a mën a bàyyi lépp waaye di leen di gëstu di leen di saytu waaye tamit sàkku si ñoom ñu jox cër ñii ñu fi fekk ba lépp lu nu mën a xaatim seen diggante yi ñu mën ko respecté te moo de sax nag yoon li mu wax leer na si wàllu woowu bëgg na tamit ñu jox cër loolu ñii ñu fi fekk ñu doon ay liggéeykat yor seen ay entreprise yu mag club pour cent préférence nationale si boobee jamono nag lañu jóg nag ginnaaw bi ñu gisee ni sax nag nguur gi mësu see banque ay yoxoom ngir dooleel entreprise nationale yi club bi xam ni jafe na nag ngir nga mën a tabax koom gu dëgër ba pare di sàggane say moomeel ndaxte yi ñiy tugal ñoom multinationale yi de taxawaay taxaw seeni mbir na mu méttee si doomu réew mi jàpp nañu ni de loolu dina jafe loolu ngir xëy am si ñi ko yellool ci gàttal mel na ni daal li si secteur privé bi mën ñoom mën ñu ko si club 50 pour cent préférence nationale am taxaw seetlu gis ni kat sunub réew weg nañ ko loolu si wàllu jokkalante ak ñooñam Sénégal ñi muy jëflanteel ñëpp bàyyi ko xel loolu ndax dëggoom ak jubam waaye tamit réew mi doon réew mu dal ubbeeku xam jamono sàmmoo ak yoon yu nu xaatim fépp yamale tamit ñëpp muy privé bi ak entreprise nationale yi Sénégal bu doon jeeg la ñu ni ñëpp a ko xemmem loolee sax tax na fu nekk la koom di jógee di dugg si fii ci ay liggéey yu wuute boole kook tamit nguur gi bàyyi na xel secteur privé ndaxte jagleel leen lu yaatu si wàllu liggéey waaye nag lu jàpp ni tamit si fonds yooyu ñu dugal ci liggéey bi bari na loo si xam ni réew mi dëkku ko jéggaani mu doon bor te sax nag sunu ay doom fa seeni ko fay si at yu bari yi di ñëw kon secteur privé bi de seen taxawaay warul doon leen lu dul jóg gunge nguur gi di émergence bi muy dox di si liggéey saa su nekk ngir Sénégal raw moo taxit desuñu si ginnaaw ñëw dugal seen loxo si liggéey bi bokk si marché yi lii de moo tax a jóg club 50 pour cent préférence nationale taxaw entreprise sénégalais yi ñu mën a béy seen waar si koom bi wane ni kat lépp lu ñuy jéggaani faneen moo ngi fi ubbeeku tamit si bépp entreprise étrangère waaye nag si kaw ñu teg ko si yoon respecté dogal yi yoon bëgg maanaam di wegante si gàttal daal club 50 cent préférence nationale ëmmam mooy yokkuteeb réew mi bokk si ñuy joxe xëy ànd si ak doomu réew mi ak ñëpp ñun ko seqal ku nekk mën see gis sa bopp.